incha allahu taala ci buntu ñaareel bi nga xamante ni moom mooy e, buntu bi ñu war a jàng tey incha allahu taala ki ngeen ci àndal nag muy seen mbokku taalibe e, Ibrahima Mbodj ñu gën ko xam ci Baye Niass e, bunt bi nag mooy ñaareelu bunt bi mu tàmbalee ci baytu fukkeel bi ak ñett jëm ba ci baytu ñaar fukk ak juróom-ñett muy vingt 28. diggante treize ak vingt huit euh, foofu la tàmbale ci la tollu ci téere bi ah Mouhamadul yi radiallahu anhu dafa am nu mu tàmbalee waxam parce que ci littérature arab soo waree tagg nit doo tëb tëb rek dem si moom da ngay am ay wax yoo jiital wax yu xorom yoo xamante ni dana attirer ki nga xamante ni moom mooy déglu ba ba ca kanam nga dooga nag àgg ci ki nga bëgg a tàgg mel ni wax yooyu moom la doon jiital démb ba agsi ci di wax ni man daal maa ngi tuumaal sama bijjaaw bi ci yedd gi may yedd te nee na bijjaaw moo gën a sori tuuma mu ni ndax li tax may def loolu fa inna amaarati bi suui ma taadat min jahliha bi nadiri bi wal harami nee na ndax euh, sama bakkan bi nga xam ne mooy nafsul amaara bi suu bakkan bi nga xam moo lay digal lu bon nee na waaruwul ci bijjaaw waar gi ko bijjaaw bi di waar ku nekk xam na ni nit su demee di dund dund ba yàgg mu am ay bijjaaw bijjaaw yooyu Euh, mu ngi wax ak mom di ko ci limu wessu ci aduna ak li nga xamne moko déssé ci kanamam muni tayit sama bakkan jëf ju rafet jo xamne mom moom la mëna téralé gan gog di bijaaw bi amul sax kersa ci mom té normalement nit su démé ba tollu ci at yoyu warna mëna wajal ci boppam ci jëf ju rafet yo xamni ni moom lay teeroo bijaaw bobu ndax jëf ju rafet ji moom mengo ak bijaaw bi tayit mo nek li nga xamni moko mëna téral muni nak su fekkeonte ni xam naa ni duma mën a euh, euh, teeru bijjaaw bi euh, ci lu mu bëgg ci jëf ju rafet kon de dinaa wut loolu ñuy wax ñuulal ma ñuulalee ko sama bijjaaw bi ba nga xamante ni du feeñ ci man ba ñuy xam ni man damaa toll ci at yoo xam ni damaa war a def lu rafet kese waratu waratumaa def lu ñaaw mu ni man lii bi raj bi radd jimaaxin min gawaayatiha kama yuraddu jimaaxul xayli bi lujumi nee na fan laa jëlee ko xamanteni momay tiel tiel sama bakkan bi nga xamni da fay mam parce que bakkanu doom adama dañu wax da fay mam jëm ci lu bon legui nag euh, nga war ko orienter jëme ko jëme ko ci lu bax mune fan la jëlé ku may ku may defal lool mune nak nag yo yoo bëggee sa bakkan bul ko jubbantee ci lu ko neex parce que bànneex du moy jubbati bu jubbanti bakkan waye bakkan dal mu ngi melni ni euh, rek fumu gëna bëgg rek fofa gëna bon ci mom moo tax mu ni fala tarum bil maasi kasra shahwatiha inna taama yuqawwi shahwatan nahimi mu ni te bakkan comme xale la soo ko mu màgg di nàmp rek waaye soo ko ferelee mu nangoo fer wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaimi in taftim yan fatimi c'est-à-dire buntu bii daf ciy waare di ci fàttaliku nit ñi ñu bàyyi xel ni am nañu noon bu ñu dëkkal parce que da nga gis léegi nit ki yor statem naan noon yi duñu kontaan noon yi du ñu bég di wax lii ca noon ya te fekk am na noon boo xam ni moom la yonent yi waxoon ni kooku rek mooy sa noon nee na sa noon pire mooy bakkan bi nga xam ne moo nekk ci moo nekk ak yow du tàqali ko yow subaak ngoon gu guddeeg bëccëg nee na boo dee wër sa noon piir kooku mooy sa noon mu ni wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kaydal xasmi wal xakami nee na bul topp ki ngay xulool nee na bul topp tam ki nga xam ni moo leen di atte ndax xam nga ni ki ngay xulool dalay wutal ay ndëgg sërëx waaye ki lay atte jubul euh, dafa dafay jeng kon mu mel ni ci gàttal euh, loolu mooy quelques abyaat yoo xam ne doon nañ ko barkeeloo ci euh, bunt bu njëkk bi mu ni nag maa ngi jéggulu yàlla ci wax joo xam ni du ànd ak jëf ndax dafa melni da nga fekk ku dul am dom nga ni mo jur dom ji neena lol ni mu dëngee neena wax ju àndul ak jëf non la dëngee neena ma ngi lay digal yiw waye man jëfuma yiw wow neena te jubuma kon nan la nan la nan la meuna waxe ni la jubal amartukal xayra lakin ma tamattu bihi mastaqamtu fa ma qawli lakastaqimi munit wala tazawwatu te moy baytu bu mujibi qabla al mawt nafilatan walam usalli siwa fardi walam asumi te nee na may man wutuma ay jëf yu baax yoo xamante ni moom laa dolle woon sama yiw yi pour bu ëllëgee su ma dem fekk ko fa man daal li may def mooy dama julli sama farata yem ca bu woor jotee ma woor sama farata yem ca te ku def loolu dëgg dëgg dundaloo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kon mu mel ni loolu ci gàttal moom mooy résumé buntu ñaareel bi nga xamante ni daf ko jagleeloon euh, jubbanti sa bakkan ak waar ko mu bañ a topp yoonu dëngate hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. an al hubba